Alaaji waaw kii du Dior ah Dior kay Seydou Moussa Diop surtout Fatal Moussa Diop naam Diop Dior naka la ana monsieur maa mi ngi fi. tey ñu ne la man acca sekk mu doon naataan ñu. wax waaye nag dama ah. sekk dama kii ko ko am. Tega nga xool baax ki koy jox waaye ki nu ko jox sunu géer gii surtout Matar Dumbe Diop boo ne Matar Dumbe Diop maama ma santoon ko kii waaye boo ne Matar Dumbe Diop di nga ñëw ci Lat Joor Diop loolu am fa fatim ngay colo ma yaasin gis jam ah. kon du sàmm nday bët gi jëg jogo maay ndeysaan juróom ñaari ma am yëpp ci toolu xar la def <laughs> xanaa xamoon sa jëkk 33 de ci ci li la buru koto rey buru wàlli yaan dàq ñaami ah kenn du sa borom kër D'accord. combien de fois j'ai expliqué euh, la dette de la Vous de mon dette ba de investir de mon 9h 10h le travail qui tarde Et vous pensez que moi mes faux je joue je jette mon argent pour la fenêtre. ah Non non non la Non non non. nii la ma tiital bee bari na. day de xoolal. tiital bee lenn nag laa la mën a wax. fekk fi joor mii moo ñu gënal fekk fi. waaye naa la yëgal ñaar waaw fi nga jàpp ndox ko sax. loolu ngeen yaakaar moom deetoon ko fa man damaa dellu si sama réew pour liggéey damaa dellu si sama liggéey pour am xaalis investir am xaalis investir am pouvoir loolu moom fii ci compte yi si fu bett ngeen ma am nañ sax mais en tout cas toi Jean. Je vous écoute très bien Yo, wax naa est-ce que moi-même est-ce que tout le monde à ce poste tu laisses faire de toute façon je ne veux plus que ça se produise de gens vous vous avez des salaires corrects par rapport à vos confrères vous avez une prise en charge médicale vous avez une prise en charge sociale mais qu'est-ce qui vous manque

du tey dong dana ko jox Seck. jox na ñu ne may rek la ñu nduróog may may nañu ba nduróog kii nag Seck li ma ciy wax mooy. jëkkër ji la. dara sa grande looloo tax ma bëgg a duggu fenn. foo bëgg a rëy yi nga xamante ne bi jëkkëram da ko amaloon R100 barke takk ngoo xamante ni bii ñaare xamoon naa ne ku mel nii rek. nii rek ma ne jëkkëram moo doon xew xewu rëy takk ñaare moom it. keroog ba ma xoolal lu ne laa fa jële lu ne laa fa jële sa waay dama xoolal bi mu dikkee bi ma séenee daa kontaan di ma baatere teraanga soxna sa jóg di ma baatere ba nu jàpp ne man man man leen nag man may jóolu juddu Musa Jóob xam nga ñooñu fa mu dëkk lan fa mu dëkk laa ne ko Musa Jóob sëñ bi nit xamuñu ko ñun géwël yi dama ni man ni ñun géwël yi xaaraan katu bu naar ñun géwël yi lan i li ngay ratatati bari na

Give me now. Yéen des ci ay biir. ah ba duggee ci néeg bi ba léegi amoo jàmm da ngaa waayal si wala da ngaa expliqué eh, si lan la. waaye job, Diop laay wax du Moussa Diop papa job mu maam na koy jaxate la. rakk Tafa Diop borom conteneur yi ci garage moo doon cët ci xaw réew damaa fa ne wala téléphone nga fekk ma fa. ah man damaa yaakaar ne waaye Moussa Diop ci laa dégg rek xam man tur bi dëgg-dëgg man xamuma woon ni papa Diop la tudd damaa yaakaaroon Moussa job mooy aw turam. ba de. déet waay si. xam nga yëg sama karjaaj bi. dëgg yàlla sama jóob rek. ah takkum ñaareel. Ah. ah xanaa xooloo ma. li ñu doyee ñaareel. bettoon na. Eh, nii. gis nga yow soo ma moytuwul naa la dóor ba nga tëdd. maa la long maa la large waaw. eh yow kan nga long ak yow kan nga large yow kan nga mën a dóor sax laa lay laaj yow. dafo sax ba naan moy dor yaw ñak ñàkk fayda ba bëgg dé top sa morom mu mais sa bàyyi bobu ngay wax man la nak yow de xam nga ni bu baax sama papa nga mëna manipuler waye man mi di doom mëno ma manipuler yow xam nga lool bu baax dafo sax. mais eh, eh eh mais qu'est-ce qui se passe ici. xanaa mom mi nek fi di wax bu ko neex. eh la femme la tu me euh, mademoiselle Fall qu'est-ce qui se passe. man de monsieur Diop damaa jaaxle. Mhm, maa ngi ñëw romb fii mu fël ma may wax mu may sosal mu ne ma ne yow dañuy doxaanante. fanaante. wuy ma nag bàyyi def yi léegi ma daanu kar jaar. ëppal rek naan fu dem mu gàccal. Ah. jikkoo ma. ñu la mel naturellement sax ñu la mel. joor kii mooy naar. naar naar kay. naara gi tur wi tur wi naar. naar joor maa merewoo ma. ah déglu ma mere yoo xam ne ñun ay jiwal lañu. ay jiwal lañu ay pelant yi rek la ñuy def nag. lenn lenn nag naa la ko xam suñu xol sedd na ci yéen. wallaahi. jant bu mbir mi tàggat tëbbee. Mhm. yéen a mën ci ñoom dëgg la. jaak sa borom ko tay yàqoo ci dara. ndeysaan wallahi ndeysaan. man nga bu ñew fi fekk ñu fi mësa sa nga nga nga fermer sa porte bi yow génn sa cinq cent. waaye jant bu ñu ñewé yaa ngi ñu akolaat sa bop man ñu jox lu sedd ñuy naan. sek te li nga yor sa loxo du du sek lan la ma ci gëna jaaxal. Mhm. ni ma ëppalé te ak ni ma comprendre man da loolu jaaxal la bu doon jéggi jamono ji so fi dof dof lo ba mam ak kuro la fay fekk ba ndox mu tanki man dama tecc <laughs>

ah si ni ma bañee sa ndey là bas ah si et puis da nga chance c'est parce que j'ai une bonne femme moi. tax nga toog sama kër ma wax ba ngay liggéey fii ba léegi mais si tu ne fais pas gaffe boo une langue.. génn ci sama vie privée Fille dootoo fi nekk l'air là bas allez dégage c'est quoi ça quand même qu'est-ce qui se passe ici tu tamit sa doxaanu baay nii nga mën a mel sa ndey nii la mel. ñun amuñu toogaay. comme fekk ñu fi Moussa Diop te fekk nan la fi na nan nañu moom lañ fi fekk. Mm. defal nga ñu teraanga. Mm. dañuy ñaan jàmm yàgg. Moussa Diop daal Moussa Diop daal. nee ko daal jëwale nga mën a ñuul. nii daal bu ko bàyyeeti. waaw yaakaar naa nga mel ne boo ni melee. Ah. du keneen. dëgg la ko korom ba ni mu ba. waaw ah. euh, gone yi namm nañ ko lool. wallaay saako ceeb yam fay def. wallaay bu rajo jàkka ja paan moom réparé. ndeysaan bëtt ah. rek la. moom la moom la jikkoy Pape Doumbia rek la. kooku ñoom ñaareel bëgg nañu. ay la ñu ba nu ñëwee fekk nu ko fi. waaw taxaw nga place dëgg la Nous euh, Makumba, même deux minutes, euh, Mahaki. Cette enveloppe contient la photo de notre bonhomme et toutes les informations dont tu as besoin pour que le cours réussisse. Je ne parle pas d'erreur. il faut Moudano dafa yore loo xam ni donc il faut qu'il tombe je suis très clair je crois. bu pour ça il y' a pas de problème tout ça se passera comme d'habitude, une grande nga daan defee rek lañ koy donc tu auras tu recevras ce que tu dois recevoir incha waa soxna yi lan doon sa tànk. sëñ bi maa lay nuyu di la ziar. sama tànk yi nag tànku jàmm kese la jàmm rek moo ma yëkkati. ba fekk na xale bi ma àndal ni Kumba sama cousine la yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay te dama dégg ne sa xarit pap moo ko trompé. sa xarit bi pap moo ko ëmbal. pap moo ëmbal kii. Mhm. ah ci ëmbal bi rek de ñëw na kër ga bàyyi fa deux pour ñu yàq ëmbal. Mhm. te yow xaritu benn mbakkenam dama bëggoon nga woo ko waxtaan ak moom ci njekk ak teraanga mu delloo si xelam bu baax a baax Moussa Diop kii xale la yàq ëmb bu deewee ñun fu ñu jëm.

je crois qu'à partir de ça je vais me convaincre pour que l'homme puisse. bëgg a def mu Chérie ci Chérie chéri Pape chéri je vais te dire la vérité faire quoi parce que je suis venu te raconter une euh, une lourde vérité. J'ai connu une euh, petite aventure avec une jeune fille qui a l'âge de ma fille. vraiment monsieur Diop je suis déçu dit ce projet ma gëm la ak ma mais je me suis rendu compte que ligne éditoriale en Et Il man man damay doxal et c'est aussi depuis un certain temps ay scandale rek la du tas ay famille di briser ay ménage man journaliste là, j'ai été formé à la bonne école ma xam éthique ak déontologie sama ngor ak sama jom nak mayuma may continuer di liggéey ci li et puis elle m'accuse de l'avoir engrossé. c'est une petite aventure une fille qui a l'âge de ta fille une ne petite aventure. personnalité bi ce sont des détails. Là n'est pas la question. J'ai un grand problème. Et ce problème est à cause de ton mari. Monsieur Diop li nga mais yow loo nekk ndof fi gis nga ñuy dugal agriculture dugal éducation les questions de développement nous sommes la ñu du ay 10 vues que à quand j'ai changé la ligne que ci Sénégal yi Sénégalais bëgg parce que Sénégalais yi yi nga wax né ñom nga moo ñom ñoom ngay liggéeyal li ñi gëm moy sensationnel ñom li ñu gëm scandale ñom li ñu loolu lañu gëm té loolu la leen fekk quand j'ai commencé ça xoolal suñu vis les des centaines de milliers de vues tous les jours chaque vidéo bi de dugg ça n'attend pas que bëgg ma bàyyi loolu pour dem delluwaat ay 10 vues ak quinze vues loolu man tax ma j'ai investi mes millions ici et je veux réussir. Et pour réussir, je suis obligé d'être dans cette ligne éditoriale. Monsieur Nyon, yow a ci comme ni comme journaliste quest gis ce qui se passe Ni bind même ni bind wala ni, euh, woné image bu ñu woné lo xam ne ci fekk si na ci Sénégalais ci liñ bëgg ça ne passe pas donc moi je suis obligé de faire ça li rek la il hein? y a pas autre chose. man sax waxatuma lool mais information bi concerne sa xarit da ko wara a ko bëgg publier. j'ai eu la bonne information de source sûre que sa jëkkër mu ngi préparé jël information bi publier ko ci biir site internet. foofu moom je t'arrête ak ni nga mel ak Diop ak fi nga jaar ak moom loolu moom du mës am. La situation bi boo ko minimiser ma vie est finie parce que je risque d'aller en prison la fille à l'âge de ma fille je dis bien elle est mineure. je peux te rassurer que l'information informations. du jàll ci monsieur écoutez-moi très bien je bëgg me déglu mu bu baax je ne amul Mbok, amul amul chez moi pour moi l'information c'est l'information est-ce que c'est clair tu sais mieux que moi que ton mari ne recule devant rien pour publier la bonne information. La seule chose qui l'intéresse, c'est la réussite de son site internet. waxal leneen. ok Normalement, je peux te rassurer sama wax ak yow kay feneen la waaye waxu site bi vraiment je me rends compte que mon monstre est jàkkaarlool. mais dans ce cas monsieur John, le monstre vous salue et la porte vous est grandement ouverte.

désolé. ci kon não dugg quoi. ah dá bom. ok merci. gëm nga ma wala gëmoo gëmoo dama ni dama ni information boobu ngay wax yàlla ba ci duma dugg ci biir. doo dugg ci biir.

lu di biiral sa moromu doom ñu koy def ci internet bi ñun de nouvelle bu nakari lañu am tay xam nga pap xaritu job bobu rek tam sympa doon fi ñew rek di kafa nit ñi di ree moom de moo mujjee suicidé wu yaa ko rey

bu de àdduna bi bu kenn wóolooti sa morom nañu wuti ji repère parce que àdduna bi yàqu na te jaxasoo na te mag ñu ñoo ko yàq ñun ñoo waroon joxe un bon exemple mais ñoo ñoo tas dëkk bi ñun ñoo ngi xasante seen biir di ŋàññante seen biir di defante lu bon lépp ci biir internet leg dara umpatul kenn ñun de xamuñu fu ñu jëm surtout politiciens yi ñoo ngi yàkkante seen leex te xamuñu ay pex de fami lañu te xamuñu seen doom yi ñoo ci nag bi ñu ŋàññante seen biir waa ñun suñu réew fan la jëm c'est vraiment triste pour notre pays dëgg dëgg Sénégal méritoowul lii